Mbàkke maa ngi lay nuyu Sëriñ Muntaxa mbakke maa ngi lay nuyu borom Tuuba yow mi taxawal Sëriñ Tuuba fii tey ci kaw suuf maa ngi lay nuyu nuyu bi gën a sel maa ngi lay nuyu nuyu bu gën a sell di gërëm di la gërëm ndax ñaan gi nga xam ni moom nga may ñaanal fu ma toll ndax ñaan gi nga xam ni moom nga may ñaanal fi ma toll ñu di ma ko wax ñu di ma ko wax. bu nu jokkoo nga ñaanal ma. bu nu jokkoo it nga ñaan googule. ñaan googule. ak ñaanu ñi nga xam ne ñoo fi toogaloon Serigne ak ñaanu ñi nga xam ni ñoo fi toogaloon Serigne Touba. Ah, dama yaakaar ni dafa xaw a mel ni nangu na. dama yaakaar ni dafa xaw a mel ni nangu na. ndax maa ngi gërëm yàlla. ndax maa ngi gërëm yàlla. yëguma benn feebar ci sama yaram. yëguma benn feebar ci sama yaram. ci at yi ma toll. yi ma toll. muy juróom fukki at juróom. juróom juróom ñeent fukki at. yu topp. ak ñett. ak ñett. maa ngi gërëm yàlla. maa ngi gërëm yàlla bu baax di sant yàlla. di gërëm xadim rasul gërëm xaadimu rasul ndax ba ma sama papa indee. ndax ba ma sama papa indee. ma nekk xale bu tuuti. ma nekk xale bu tuuti. mu jox ma sëñ mu jox ma sëriñ Fallilou. ba fi ma ne toll tey. ba fi ma toll tey. lu ma bëgg ci àddina. lu ma bëgg ci àddina. am naa ko ci barke. xaadimu am naa ko ci barke xaadimu rasul. deseetuma dara. deseetuma am naa lépp am naa lépp ndax boo demee ba ñu la yaay ne la yaay président de la république ndax boo demee ba ñu ne la yow yaay président de la république yaa jiitu ñëpp yaa jiitu ñëpp jox la ko nag ci lu leer jox la ko nag ci lu leer ci loo xam ni ci loo xam ni nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp. man élection yu leer laa gagné. man élection yu leer nañ ñi laa gagné. amul dara dara dara dara lu ci nekk luxum. amul dara dara dara lu ci nekk luxum. ndax seen ñaan sa ñaan. ndax seen ñaan. sama élection. sama élection. addina bi yëpp dañu ko wax. addina yëpp dañu ko wax. ba ma fi nekkee président de la république. ba ma fi nekkee président de la république. dama leen xamal ni. dama leen a xamal ni. xamal xam xamal ko it tubaab yi. xamal koy it tubaab yi. président de la république président de la Sénégal. Sénégal. maanaam diine benn diine bi muy l'islam maanaam diine ji fi ne dafa am kuréel yu bari dafa am kuréel yu bari man nag murit la man nag murit laa du ma ni leen mukk leneen la nag leneen la ndax li ma am ndax li ma am loolu moo ma ko may loolu moo ko may sëriñ lu weesu loolu bu weesoo loolu damaa gëm muridisme dama gëm muridisme dama ko gëm dama ko gëm mas naa ñëw siyaare ci sëriñ nee na mas naa ñëw siyaare si sëriñ Fallu maa ngi ànd ak suma benn xarit di professeuru américain mi ngi ànd ak benn xaritam bu doon professeuru américain ma présenté ko sëriñ bi ma présenté ko sëriñ Fallu sëriñ bi ni ko ni ma waaw kii mooy kan ma ne ko kii de américain la day jàngale te Amérique sëriñ Fallu ne waaw kii mooy kan ma ne ko ah kii de professeur américain lay day jàngale ci Amérique day jàngale économie day jàngale économie comme man comme man. loolu moo tax nu xaritoo. loolu moo moo waral nu xaritoo. ba pare moom mu nekk nag spécialiste Afrique. ba pare nag moom mu nekk professeur boobu américain boobu spécialiste Afrique. Sëriñ Fallu ni ma ni ko ñoom murit lañu. Sëriñ Fallu ne ko ñoom ñoo ñu ay murit lañu. wax ko ni ko ay murit lañu. ñoom ñooñu ay murit lañu américain yi. ma ne ko ah, bi nee na yéen ay murit ngeen. nee na ma ne ko ah man de li ma jaaxal yow sëñ bi daal nee na yéen ay murit ngeen yéen américain mu ne ma waaw man américain la lu tax ma nekk murit mu ne ko ah, man américain la lan moo waral ma nekk murit ma wax ko sëriñ bi nee na ma wax sëriñ Fàllu loolu sëriñ ni ma ñoom liggéeykat lañu sëriñ Fàllu ni ma ñoom ay liggéeykat lañu te kuy liggéeykat rek te kuy liggéeykat yaa ngi ci yoonu murit yaa ngi ci yoonu murit <laughs> sëñ Fàllu ko wax loolu waaw te dafa xaw mel na ko te dafa xaw a mel na que. addina yëpp li ciy dox. àddina yëpp li ciy dox. waxuma Sénégal rek. waxuma Sénégal rek. addina yëpp laay wax. addina yëpp laay wax. dama bind ci benn téere. dama bind ci benn téere. ma ne Afrique. ma ne Afrique. bu ñu toppoon yoonu Serigne Touba bi. bu ñu toppoon yoonu Serigne Touba. nëgë ni dana fekk ñu sori lool ba dab tubaab yi. dana fekk ñu sori lool ba dab ndax li ñu sëriñ Tuubaa jàngal. ndax li ñu sëriñ jàngal. wéer ko ci li yàlla wax. wéer ko ci li yàlla sunu borom wax. ñaan leen leen. ñaan leen ma may leen. sëñ Tuubaa jàngal nu. jàngal liggéey liggéey. liggéey ci topp yàlla la bokk. liggéey ci topp yàlla la bokk. ñu nekk ci loolu. ñu nekk ci loolu. loolu nag dama bind ni ku ko am ci réew. loolu nag dama bind ne képp ku ko am ci réew. réew moo xam ne da nga am nit yoo xam ne dañuy liggéey. réew moo xam ni da ngaa am nit ñoo xam ne dañuy liggéey. te mën nañoo liggéey te duñu fayu dara. te mën nañoo liggéey te duñu fayu dara liggéeyal réew mi rek. liggéeyal réew mi rek. réew mu am loolu. réew mu am loolu. am nga lu ne. am nga lu ne. ma ne ci téere boobu dafa xaw a mel na nee téere boobu dafa xaw a mel ni alal joo xam ne dañu gas suuf dugal ko ci alal joo xam ni dañoo gas suuf dugal ko ci suul ko ci te xamuñu ko woon te xamuñu ko woon Cheikh Ahmad Bamba nag moomu woon ni Cheikh Ahmadou Bamba nag moom woon ni bu ngeen toppee di liggéey ngeen toppee di liggéey alal jooju la di ngeen ko jot alal jooju dangeen ngeen jot mu jëriñ mu jëriñ leen lu jiitu pétrole bi ci la bokk pétrole bi ci la bokk. nee na lu jiitu pétrole bi sax ci la bokk. pétrole. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul fu mu mën a ne. kenn xamul it li tax yàlla def ko ci bërëb. kenn xamul it li tax yàlla sunu borom def ko ci bërëb. am nañu nag ay machine appareil yoo xam ne ak avion. am nañu nag ay machine ak i yoo xam ne ak i avion. bu ñu ko seetee. bu ñu ko seetee. satellite yi. ci satellite yi. danañu mën a photographier suuf si. danañ mën a photographier suuf si. ba xam li fi ne lan la. ba xam li fi ne ci biir lan la. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. waaye loolu yóbbuwu fa boppam. yàlla nag moom mooy seet ci kattanam. yàlla sunu boroom nag moom mooy seet ci kattanam. fii ma def fi lii fii ma def fi lii fii ma def fi lii fii ma def fi lii. fii ma def lii fii ma def lii fii ma def fi bind naa ci 1900. 58 ci ci sama thèse. ni la doctrine économique du mouridisme. ni la doctrine économique du mouridisme. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. c'est une richesse cachée dans un pays pauvre. ma ne bu fekkoonte ne Afrique yëpp dañu topp mu ni bu fekkoonte ne africain yëpp dañoo topp mouridisme dana fekk Afrique sore lool dana fekk Afrique sore lool ndax ñun li ngeen nu jàngal ndax ñun li ngeen nu jàngal mooy liggéey rek mooy liggéey rek te àddina dara newu fi lu dul liggéey te àddina dara newu fi lu dul liggéey ak gëstu ak nag gëstu nag man nga trouvé dara man ngaa bañ a trouvé. mën ngaa trouvé dara comme mën ngaa bañ yàlla booy gësu booy gëstu yàlla moo xam lu mu lay won. yàlla moo xam la mu lay won. ci na lam Einstein nga xam ni dañu dañu jàpp ni moo fi ëpp xel. waaw yëg-yëg yi nga xam dañoo jàpp ne ñoo fi ëpp xel. Einstein. Ah, Einstein Einstein waaw Einstein waaw borom xam-xam bu mag la du woon ab allemand. moo wax ni. sama formule bi ma wax ñëpp di ko yéem. moo wax ne sama formule bi nga xam ne moom laa def wax ñëpp di ko yéem. muy E égal mc muy E égale mc énergie. énergie égale masse. que multiplie le carré de la vitesse. multiplié par carré de la mun a calculer wu ma ba agsi ci de. calculer wu ma ba agsi damaa jékki rek gis ko. damaa jékki-jékki rek suñu borom sol ma ko. yàlla sol ma ko. ma daal di ko bind. di ko bind. te formil boobu. te formil boobu. moo tax. moo tax. américains yi. américains ak russe yi. russe yi ak chinois yi. chinois yi. ñuy mën a defar ay machines yoo xam ni. ñuy mën a defar machines yoo xam ni di dem ba ca weer wa. di dem ba ca weer wa. a ca ba ca gannaaw weer wa. ba ca gannaaw weer wa. waaw akbar. loi boobu. loi boobu. mooy mooy régir maanaam moo nekk ci diggante. lu ne ci àdduna roi boobu mooy kenu lépp lu nekk ci àdduna te kooku yàllaa ko ko won te kooku suñu borom moo ko ko won yàlla mënoon na ko won keneen yàlla mënoon na ko won keneen waaye moom la ko won waaye moom la ko won waaye xam-xam yemul ci ci loi boobu waaye xam-xam yemul rek nag ci loi boobu am na yeneen yu bare yoo xam ni am na yeneen yu bari it yoo xam ni ñi ko gis ñi ko gis te ñu di ko jëfandikoo. te nit di ko jëfandikoo. ñoom itam dañoo yàlla moo leen ko. sol rek borom rek moo leen ko woon ci kàttanu ko. Euh, c'est vrai dëgg la nag ni. découverte yooyu. découverte yooyu yooyu ñu gis. Afrique. Afrique barelewu ci. Afrique bari la wuti. sunu Afrique bi. sunu Afrique waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku léegi. waaye am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfandiku ci Afrique la jege. ci Afrique gii la la bawoo. waaye dafa xaw a mel na mu am jamono boo xam ne dañu ko fàtte. waaye nag dafa am jamono boo xam ne dafa mel ni dafa a mel na. Ah, dafa xaw dañoo fàtte xam-xam boobu. dañoo fàtte xam boobu. te tubaab yi di ko jëfandikoo fi mu ne. ñoom di ko jëfandikoo ñoom nangu nañu ni sax nangu nañu ni. ñoom nangu nañu ni. lu bare lu ñuy jëfandikoo ci xam-xam. lu bare lu ñuy jëfandikoo ci xam-xam. mu nga jóge ci Égypte. mu nga jóge ca Égypte. Égypte ci Afrique la ne. ci biir Afrique la ne. te Égypte ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. te Égypte googu it ña fa dëkkoon nit ñu ñuul lañu. ñëpp xam na civilisation égyptienne. waaw xam na. moo jiitu civilisation grecque. mooy jiitu civilisation grec yi savant yi dañu daan dem di jàngi te grec yi savant yi dañu daan dem ñoom sax di jàngi. grec bu. Euh, romain yi dañu fa daan dem di jàngi. romain yi dañ daan ñëpp di fa jàngi. ay nit ñu ñuul lañu te ñooñu nit ñu ñuul lañu. waxuma ko nag ci kaw lu ma neex. yéen ko ci kaw rek nag lu ma neex. Cheikh Anta bind na ko. Cheikh Anta Diop bind na ko. tubaab yi contesté ko. tubaab yi ci boppam euh, dàq ko. ndi ko loolu mënuñu koo nangu. ne ko loolu nun mënuñu koo nangu. pourtant wane na ni. te mu wane na ni. ñooñu ay ñu ñuul lañu. ñooñu ay nit ñu ñuul borom der yu ñuul. boobu ba tey nag ñuy xeex loolu. ba tey ñuy xeex loolu. ba fi mu ne. ba fi mu ne. tubaab yi seen bopp nangu nañu ni. tubaab yi seen bopp nangu nañu ni. égyptiens yi. égyptiens yi. seeni buur. seeni buur. amoon na ci ñu ñuul. amoon na ci ñu ñuul. alors que dañu doon benn bu ñuul amu ko. dañoo dàqoon loolu ne benn bu ñuul nit bu amu ko woon. nag. Euh, nit ñu ñuul kenn kenn jiitu ko ci xam-xam. kon nag nit ñi ñuul ñi kenn jiitu leen ci xam-xam. xam nag mooy gëstu. xam-xam mooy gëstu. léegi boo seetee brevet yi. léegi boo seetloo brevet yi. Amérique. Amérique. yu ci bare ay nit ñu ñuul ko inventé. yu ci bari ay nit ñu ñuul ko inventé ñoo ko xalaat gëstu ko. ñoo ko xalaat. waaye ci sangu esclavage. waaye ci jamono ja ñu jàpp njaam njaayum bu jaam bi trouvé dara. bu jaam bi trouvé dara. brevet bi. brevet ba ñu ci ci moom jaam bi moom lañu moom la ñu koy bind. ñu askanale ko ka wax ne moom mooy borom jaam. ba am na lu bare yu ñu inventé ñu naan jiwu ko ko def fekk du moom la fekk jaam ba moo ko trouvé. am na lu bare bare bari ñu jàpp ne. mënoon mënoon naa fi toog wax dama ne fi toog ay wax. di leen wax yoo xam ni. di wax yoo xam ni. ay nit ñu ñuul ñoo ko ture. ay nit ñu ci boppam la yàlla jagleel. nit ñu ñuul Afrique. nit ñu ñuul Afrique. am na lu ñu ture. am na lu ñu waaye nit ñu ñuul Amérique. waaye nit ñu ñuul ñi ca Amérique li ñu ture moo ëpp. la ñu ture moo ëpp. moo tax. moo tax damaa am mouvement boo xam ni. damaa am mouvement boo xam ni. dama ko bëgg a lancer ci xale yi. dama ko bëgg a lancer ci xale yi. pour habituer ñuy gëstu. pour que ñoom habitude di gëstu. bu ñu amee bu ñu inventé dara rek. bu ñu demee ba inventé dara rek. man maa leen koy bërëwatal. moom ci boppam moo leen koy bërëwatal. xam kenn du ko mën a imité. nga xam ni kenn du ko mën a toppandoo. ku ko bëgg a soxla. ku ko bëgg a utiliser. ko bëgg a soxla da nga am looy fay. bëgg cee jaruñ it da nga am loo fay. bërëwe nag ko ko am xaalis la. bërëwe nag ku ko am xaalis la. foofu mouvement boobu ma bëgg a lancé. mouvement boobu nga xam dama ko bëgg a lancé. pour xale pour xale yi. li ma ci namu moo di li ma ci namu moo di fexe ba xale yi fexe ba xale yi mënal seen bopp mënal seen bopp am liggéey am liggéey au lieu di toog jox leen liggéey au lieu ñu toog ñu di leen jox ñu danaa leen wan nañu mën a def ñoom dana wan ñoom ñooñu pour mën a def defar defar seen liggéey ba def seen liggéeyu bopp duñu mën lépp nag duñu mën lépp nag waaye di nga mën a liggéey loo xam ni waaye di nga mën a liggéey loo xam ni di nga ci mën a dund da nga mën a jëriñu dund sëriñ bi. sëriñ bi. tey li ma fi indi. tey li ma fi indi. mooy siyaare la. mooy siyaare la. gërëm la. gërëm la. indi la sama sama ngërëmu doom. indi la it sama ngërëmul doom. sa taalibe. di sa taalibe. ni ma nee sa taalibe. ni mu nekk moom it sa taalibe. ma nekk taalibe sëriñ Saaliw. mu nekk taalibe sëriñ Saaliw. mu jóge fi ma jébbalu ci yow. mu jóge fi mu jébbalu ci yow. mi ngi ci jàmm nag. mi ngi ci jàmm nag. tey jii jokkoon nañu ñaari yoon wala ñetti yoon. tey jii jokkoon nañu ñaari yoon ba ci ñetti yoon. sëriñ bi. sëriñ bi. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. dafa am liggéey yu ma bëgg a liggéey. ma di ci laaj sa ndigal. ma di ci sàkku sa ndigal. boo ma ne digal naa la loolu. boo ma nee jox naa la ci ndigal rek. ma daal si jublu léegi. ma daal di ciy jublu léegi. bi ci jiitu. bi ci jiitu. moo di Touba. moo di Touba. ni mu sonnee ci ndox. ni mu sonnee ci mbiri ndox. surtout màggal. surtout nag bési màggal. ñëpp dégg na sa kàddu. ñëpp dégg nañ sa kàddu ñun ñii ñëpp. ñun ñii ñëpp. xam nañ ñu màggal. xam nañ ni màggal. problème la ndax ndox mi. problème mu ndox dëgg dëgg da ci am. bi ma nekkee président. bu mu nekkee président. juróom fukki at ak ñaar. fukki at ak ñaar. ah daanaa góorgóorlu di ci def lu ci man nee na daanaa góorgóorlu di ci def lu ma ci man waaye léegi nag. waaye léegi nag. dama bëgg def loo xam ni weesu na loolu. damaa bëgg nag def loo xam ni ci wàllu ndox weesu na loolu. weesu na li ma daan def. weesu na li ma daan def. ak li ñuy def fii mu ak li ñuy def ci jamono yii ci wàllu ndoxum Touba. li sëñ Touba wax ni. li sëriñ Touba wax ni. bés dana ñëw. bés dana ñëw. ba ndox muy dama koo dégg de démb sax dama dama benn Serigne indil ma bindal ma ko xam naa ni mi ngi ci sama kayit yi. ñi dana bés dana mës a ñëw. bés dana mës ñëw. ba ndox di walwali Touba. ba ndox di walwali Touba ndox mu bare. ndox mu baree bari. di ci Matlaboul Fawzayni ci te loolu ba tey gisuñu wuñu ko. te loolu ba léegi ci saayir gisaguñu ko. ma bëggoon nag sëñ bi. ma bëggoon nag sëñ bi nga may ma. nga may ma ndigal. nga may ma ndigal man ma nekk taalibe bi réaliser loolu. ma nekk taalibe bi nga xam ne ci sama loxo la loolu di antoo. ndigal rek laa ci soxla ndigal rek laa ci soxla. ngir ndox mi walwali ci tuub soxlawuma leneen soxlawuma leneen. lépp. lépp maa koy xalaat. maa koy xalaat. ba indi ko. ba ba indi ba indi ndox ma. pour que affaire ndox. ngir mbiri ndox. bañ a te nekk problème. bañ ci Touba ak li ko wër nun murit xam nañu ni. nun murit xam nañu ni. li Xaadimu Rasuul gis ba wax ko. li li Cheikhul gis ba wax ko. lu mën a am lu mën a am la. kañ lay am kañ. kañ lay am kay. man nag dama ko bëgg a def. waaw loolu nag laa bëgg a def. ndigal rek laa ci rek nag laa ci laa ci sax. man fi ma nekk weesu naa di campagne. nee na fi ma nekk man weesu naa di campagne jeexal naa côté boobu jeexal naa ci. foofa jeexal naa ca. président de la république koo nekk. président de bëggatuma koo nekk. li ma ciy liggéey liggéey naa ko. li ma ciy liggéey liggéey naa ko ba noppi. li ma bëgg nag. li ma bëgg nag. ndigal rek. rek. waaye danaa la. nag danaa leeral. leeral. leeral mbokku taalibe yi. leeral mbokki taalibe yi. lii ma wax ni li ma wax nii. naka laa koy defee. naka laa koy defee. moo du ma ko wax fii rek dem. du ma ko wax nii rek dem. dama fa am fu ma ko wéer. daa am fu ma ko wéer. jox ma sama dossier bi. camion américain la. ay camions américain la camion yi. camion yi. day liggéeyu ndox. day liggéey ndox. ndox moo ndoxum géej la. yaa xam ndax ndoxum géej la. wala ndoxu wala ndoxum déeg. wala bu mu mën doon. wala ndox mu mu mën doon rek. da koy jël. da koy jël. liggéey ko. liggéey ko génne ci ndox mu ñuy naan. génne ci ndox mu laap mu ñuy naan. bu toll ci six cent quatre-vingt-dix mètres cubes. bés bu ne ci six cent bés bu ne. ci bés bu ndox moo xam ne dañu koy naan. ndox moo xam ne dañ koy man a naan. xëy na sax. xëy na sax. mooy gën ndox mi génn ci. robinet yi ci bi ñu nuy servi ci yi. mooy gën sax ndox mi nga xam ne dañu koy servi ci robinet yi. ba pare. benn camion bi rek ba pare. bëccëg bu ne. bëccëg bu ne. bu génnee ndox moomu ba pare. bu génnee ndox moomu ba pare. lu toll ci. lu toll ci. Euh, ci description ni ñu ko liggéeyee fi ndox mi jaar produit yi ba nekk ndox moo xam ne mënees na koo naan. dañoo màndargaal fi muy jaar yépp ba mën a doon ndox mi nga xam ni mën nañ koo naan. ba pare li ndox moomu. ba pare ci ndox moomu. mu defar ci glace. mu defar ci glace. ay tonu glace. ay toni glace. yoo xam ne ay cube glace la. yoo xam ne ay baari glace lay doon. baar ak cube yu toll nii. ak ay cube. bés bu ne. bés bu nekk. Euh, camion yi. camion yi. benn rek. benn rek. mën naa régle problème mu Touba. mën naa régler problème mu Touba. ndax day duy ndox. ndax day duy ndox. ñu yëkkati ko sotti ko ci château bi. ndax yëkkati ko sotti ko ca château ba. mu jeex. château bi alimenté dëkk bi. camion bi. camion dama wax Karim ni ko. damaa wax Karim ne ko. danaa la ci indil ñett. danaa la ci indil ñett. benn pour yow. benn pour yow. benn pour Touba. benn pour Touba. benn pour say tool. benn pour say tool xel kom wala feneen. waaw koo mën a ami tool rek muy ñetti camion yi benn pour dëkku tuuba benn pour yow benn bi foo mën a am say tool rek ndax camion yi mën naa si ndox ci tool. Euh, ma dem ci. nee mu dem ci. sorewul sax ak affaire bi. leen ko leen ko. télévision bi yëkkati leen loolu njëkk a laaj. nee ndigal li muy njëkk laaj. nga ne jox naa la problème mu Touba. nga ne ma jox naa la problème mu góor góorgóorlu ba ndox dootu fi ñàkk. góorgóorlu rek ba ndox dootu fi ñàkk. bu soobee yàlla ma jublu ci léegi. bu soobee yàlla jublu ci léegi. bi may ñëw fii. nee bi may ñëw fii. ma gis ci autoroute bi. ma gis ci autoroute bi. da xool ba fu sa bët mën a xool ba fa sa bët mën a ngay gis ay garab nii rek. da gis ay garab nii rek. waaye benn eh, mbay newu fa. yenn meññeef ni luy sax meññeef. luy sax. dara da ngay xool doo gis dara. da ngay xool doo gis dara. ma bëgg nag. foofu tam foofu nga jox ma fi ndigal. jox ma fi ndigal. bay ko yëpp. ma bay lépp. ba boo jógee fa il laa ba fii. ba foo mën a jógee ba fii. foo xool dafay weer. foo xool day wert ñu di fa jëmbat di fa di fa di fa ji. di fa lu ñuy lu ñuy lekk rek. lépp lu ñuy jariñoo rek. xam nga man ci sama bopp sax damaa jaaxle. man sama bopp sax damaa jaaxle. parce que ba ma amee xalaatu xale yi. ndax ba ma amee xalaat ci xale yi. pour yóbbu leen def leen ci ay ferme ngir yóbbu leen def leen ci ay tool yu mag. ay ferme yàgg na yàgg na. waaye ilaa Touba bii. waaye ilaa Touba bi dafa nekk. autoroute boo xam ni. day yombal la ma boo xam ni day yombal la ma xalaatoon. man maa ngi bëggoon a commencé ci Linguère maatam nee na mi ngi bëggoon a tàmbali ci lim. ci ba ndax boo bayee tam il faut nga am oto yoo ko yëpp mu dem. ndax boo bayee faaw nga ñu koy jaay wala ci port wala ci aéroport ñu exporté ko. wala port mbaa aéroport ngir jàllale meññeef mi. léegi nag. léegi yàlla def na Ila Touba na Ila bi. yàlla ak xadimu rasul yàlla ak xadimu rasul foofu dama damaa bëgg nga jox ma fi ndigal dama bëgg foofu nga jox ma fi ndigal ni ma suuf saa ngoog bayal ni ma daal suufa ngoog rek bayal noo ko mën a bayee noo mën a baye rek foofu li ma lay dama ñaan rek moo di li ma lay ñaan rek moo di nga wax taalibe yi nga wax taalibe yi wax mu murit rek sax nee na wax mu murit rek ak ku mu mën a doon ci senegal ku mu mën a doon rek ci senegal nga leen dem bayal leen ma foofu nga leen dem leen rek ca mbay ndigal ñi nga xam ni nangu nañu ci sa ndigal. nga xam nangu nañu ci sa ñu déggal ma. ñu déggal ma. ma def fa ay ferme. ma def fa ay ferme ay tool yu mag xeeti tool yu mag. ferme bi model baa ngi nii. ferme yi modèle baa ngi nii ma yore. <coughs> mën naa defar ak ferme 2000 hectares. mën naa def. mën naa defar ferme dix mille hectares. mën naa defit ferme dix mille hectares. mën naa defar ferme cent mille hectares. mën naa defit ferme cent mille hectares. xam naa nag du neex a dégg. nee na xam naa nag du neex a dégg. waaye mën naa ko de. waaye mën naa ko de. mën naa ko bu baax. ani sama fer. ferme modèle baa ngi nii. te lu ferme baa ngi dama la koy bàyyi nii. dama koy bàyyi sëñ bi. <laughs> mooy tool yu mag li li ma nar a bay. li nga xam daal moom laa nar a bay lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. kii nag dix hectares la fukki hectares. bii nag ma indi ci masala moom fukki hectares la. muy am manguier. dana am greffé mango yu ñu greffé. muy am pamplemousse. dana am pamplemousse. am citron. am citron lingom. ak culture culture maraîchère maanaam salade yeeg carotte yeeg légumes yi euh, te itam bu nawet ñëwee te bu nawet ñëwee dañuy continuer bay mbayum nawet dañuy continuer bay mbayum noor mbayum waaw mbayum noor bu jafee ngoon de euh, ni ñu koy liggéeyee yëpp nee na ni ñu koy liggéeyee nag mi ngi fii mi ngi fii mën nañ cee def ferme dix hectares. mën nañ cee def ferme dix hectares. cinquante hectares. cinquante hectares. cent hectares. cent cent hectares. deux cent hectares. mille hectares. mille hectares. deux mille. deux mille suuf soo am rek. suuf soo mën a am rek. ngeen jàpp ni loolu boo amee camion yi dootul jafe. nee na boo xasee am yi rek jeex na day daal di yomb dootul jafe. dañuy duy di indi. ndox ñu roose lépp. ñaareel bi. ñaareel bi. ndox moomu. ndox moomu. kii itam dama ko fi bàyyi sëriñ bi euh, dama bëgg. nee dama bëgg. bu soobee yàlla. bu soobee yàlla. lii xaadimu rasul bind. lii xaadimu rasul bind. mu xëcc ndox. mu xëcc ndox. jóge ca Gambie. mu jóge ca Gambie. wala fëlew Sénégal. wala fëlew Sénégal may nii ko ba fii ci Touba. moo tax ma dama bëgg a nekk taalibe bi bii moo tax damaa bëgg a nekk taalibe bi xadimu rasul wax. bi nga xam ni man maay jëmmal li Cheikhul Xadim wax te ma daw foofu na sotti ci kanamam mbaa bokk bokk ma ma doo si Serigne Cheikh Gueye moom moo ko bindal. yi ci moom Cheikh moo ko bindal waaye nee na mën yi ci. nee na Serigne Madieye ca Kébémer maa ngi école français de. nee booba maa ngi ci école bu nu bu xëyee ci alxuraan ji ñuy commencé. waaye bu ñu xëyee nag ci alxuraan ji la tàmbali. fu muy wàcce kamil. nee na fu muy wàcce kamil daan wal leen ma Ablaye. daan wal leen ma Ablaye. kon nag. ah kon nag xam naa ci tuuti. <laughs> xam naa ci sama xam-xam nag sorewul ndax dégguma arab. nee xam-xam sorewul ndax waaye tari tari alxuraan. waaye nag tari alxuraan naa alxuraan nag. tari wàcc naa wàcc naa alxuraan nag. naa ci lu bare. fàtte naa <laughs> ndax moom li nga dul fàtte mooy li xam ne da koy jëfandikoo di ko jullee rek waaye li man <laughs> sama dama koy bàyyi ak ko bàyyi ak sëriñ waaye foo xët foo xët ci alxuraan daal. daal nee na foo yaakaar naa ni mën naa ci topp. yaakaar ni mën naa la topp. Ah, euh, David Diawara. dafa dem Caire. dafa dem Caire. président. président Daouda Diawara mi Gambie. dem Caire. dem Caire ca Égypte. ñu ne ko ban diine nga bokk. ñu ne ko yow diine nga ah, bokk man jullit laa. mooy leen jullit laa. ñu ne ko waa tarelu alxuraan. tarelu tarelu Fatiha. mu fatigué lool. <laughs> tarelu Fatiha mu fatigué lool <laughs> parce que. danaa la indil carte. danaa indil carte. li nga xam ni foofu laa ko bëgg a def. li nga xam ni fa bëgg a def. lu toll ci dix ferme lu toll ci fukki tool yu mag ferme. maa ngi leen tudde ferme Mouride. maa ngi leen tudde ferme Mouride. boo ko nangoo. boo ko nangoo. ferme yooyu. ferme yooyu. tool yooyu ni ma liggéeyee tool yooyu ni ma liggéeye ki lañu koy liggéeyee. waaw bu ci nekk danaa indi. nee na benn bu ci nekk dina ci indi. oto bu indi ndox. ci xeeti oto yi nga xam ne dañuy ndox mu doy. a jël sax ndoxum xorom soppi ko ba mu lewet. la neex sax tànk ci mu xaddam ak sëriñu murid yi. nee na président. ko jagleel président ko neex mu def ca. waaye. waaye. dafa xaw a mel waaye dafa xaw a mel ne. dañu ma ni bu ci garder dara. dañ ma ne bu ci denc dara yoruma ci denc ma ci dara. dara dara dara dara ci fonds politique. cent mille francs. sept cent mille motul sax un million. ne lu motul sax un million. bu may génn ci palais bi loolu moo ne sama poche. keroog bi may ci palais bi loolu nekk sama poche. lépp joxe naa ko. lépp joxe naa parce que yàlla daf ma yombal am xaalis. yàlla damaa yombal am xaalis. waaye en même temps mu xamal ma ni. waaye mu xamal ma am na ñoo xam ne mënuñu am xaalis. am na ñoo xam ne mën nga koo am. yow mën nga koo am dama lay jox nga am xaalis. dama lay jox waaye doxe ko yow. waaye nag joxe ko bu mu bu mu fanaan ci sa loxo. bu mu fanaan ci sa loxo. naa ko. da sa loxo rek lanti loolu la te loolu nangu naa ko. bind naa américain yi. nee na bëndi naa américain bind naa leen. bind naa leen. benn lettre boo xam ne xam ne dégg nañu jàng nañu ko ci presse bi. benn lettre boo xam ne wax naa kii ni ko na ngeen dem ci ambassadeur américain ak ambassadeur France ngeen lu tax duñu ma tontu. man leen dama bëgg ngeen enquête man Ablaye Wade ci àddina bi yëpp yéen a fa nekk ngeen seet ndax am na xaalis ndax am naa kër lu ngeen fa gis nag ngeen waxu ñëpp déggu ko man ma wax li tontuwuñu ma danaa la ñaan sax la ñaan sax nga yónnee ci ambassadeur américain bi ak ambassadeur français bi ngeen leen sama taalibi Ablaye Wade dafa bëgg set ci wu xaalis ñaan na leen ngeen lii Macky def ci Karim xaw ma juróom ñaar fukki dëkk fu ne mu yónnee fa di seet am na xaalis moom parce que amul moyen américain ak français yi nga neen dama bëgg ngeen wax ma ndax Ablaye Wade sama taalibe am na xaalis fenn wala compte en banque bu xaalis bu bu wala wala immeuble man dafay dafay dafay sàkku sax nee sëñ bu ko manoon ñun ñaan américain yi wala France. gisuñu ci àddina bi benn président boo xam ne sàccul alalu réew du sotti. waaw ndax fii gisuñu président boo xam ne lu balul alalu réew. waaye buñ ci gisee kenn. man xam naa ni chef d'état yëpp danañu ma mere. nee na chef d'état yëpp nag danañ ma mere. chef d'état bu ma merewul. bu ma merewul rek. sàccul alalu réew. xam nga waaye ñoom ñëpp. waaye ñoom ñëpp xam nañu fi ma jëm sax. xam nañu sax fi ma jëm. ba ñu ñu ci bare. ñu ci bari. Euh, Macky la ñu gën a àndal. Macky la ñu gën a àndal. parce que moom du leen déranger. <laughs> ndax moom du leen déranger. waaye lii may def. waaye li may def nii. danañu leen ñoom obligé ñu def ko. da leen di obligé ñoom ñu def ko mooy bañ ban jëlul dara réew ma. bañ parce que teguñu ñu ci bopp réew. teguñu ci boppam ñëw wul xaalis man dama am xaalis te man dama am xaalis te egguma ci ñëpp xam ngeen ni parti bii li ko doxal depuis 74. ci sans poste la jógee. ñëpp xam nañ ni parti bi depuis 74 li ko doxal sama poste la jógee sama wërsëg. mu mel na ma ma di ko diriger comme bu doon réew. ma di ko jiite comme bu doon réew. yàlla di ma ci dimbali. yàlla di ma ci dimbali. may am samay oto. may am samay oto. maanaam di ko doxal daal ba. di ko doxal ci sama moyen bopp. egg si ci nekk président de la république. ba si ci nekk président la république. ci barke Xadim Rasul. ci barke loolu daal xam naa ni bëggoon naa sëñ bi nga xalaat ko. nee daal bëggoon naa nga xalaat ko nga ni leen déclaration mi ngi fi. sama taali bi daf leen a ñaan ngeen def enquête ci àddina bi pour wax. Euh, ma bëgg daal. neen daal dama bëgg. pour ndox mi. ngir mbirum ndox mi. dañu koy def def naa benn société. nee na def naa benn société. boo xam ni Touba eau la tudd. boo xam ni Touba eau la tudd. du eau ndox nag eau eau la eau nii rek. ak ak sans circonflexe. maanaam pour son bi rek Touba nag sama sama dama bëggoon yow nga jël soixante dix pour cent yi société bu fii lay na nag yaa koy wala koo ko jox euh, man sama sama bureau d'étude trente pour cent la ci am waaye soixante-dix pour cent yi boo mën mën tey ñu def ko ci turu mairie bi ñu def ko ci turu mairie bi bu ñu ko war a def ci communauté mouride aussi ñu def ko ci turu communauté mouride parce que nag lii ma lay wax day indi xaalis bu bare mooy tool yi ndox mi da egg gu ma ci tool yi <laughs> ferme bi ka xaalis dana indi xaalis boo xam ni du xocc fi <laughs> yaay sel nag ci yenn loxo koy def ndox mi bëgg nga wut koo xam ne kii dama bëggoon nag Karim mm, Touba O boobu mu ne président bi. Touba O bi ci boppam. mu nekk président bi Karim boobu nga wut koo def vice président. nga wutit koo ca toftal. société bi nag nga yor ko. mu doon ab société boo xam ne. li nga ma bëgg a yëpp. ndax li nga xam ne moom laa bëgg a liggéey yëpp fokk xaalis jógee di bitim réew waaye loolu yàlla man loon na ma ko. fokk xaalis bu baree bari bawu bitim réew te loolu yàlla mën loo nama ko. te bëgguma mu jaar ci sama loxo. te it bëgguma mu jaar ci sama loxo. dama bëgg kuy jox dara Tuubaa. dama bëgg képp ku jox mu ñëw ba ci rek mu jox la ko. waaye man dama bëggul sax di nekk ci affaire intermédiaire u xaalis. dama nekk ci lépp lu jëm ci mbirum xaalis ndegam ba ma yoree gouvernement bi laa ko bëggul aslam mag léegi ndegam ba ma yoree nguur gi laa ko bëggul waxuma ak léegi ma bëgg nee na dama bëgg nga encouragé taalibe yi nga nga xiir xiirtal taalibe yi pour man lu ma leen dig rek pour lu ma leen dig rek lu ma leen diggal lu ma leen digal ñu def ko ñu def ko te xam ni ci intérêt Touba rek laa koy njëriñal Touba rek dama bëgg def benn compagnie d' aviation dafa bëgg a def benn compagnie aviation mi maa ngi ko bëgg a tudde Touba aviation. nee na mi ngi ko bëgg a tudde Touba aviation. ci anglais Touba aviation. aviation ci tu kàllaam ak anglais. Touba aviation. ñetti avion rek laa bëgg. ñetti avion la ci bëgg. benn hélicoptère. benn hélicoptère. benn avion king mooy avion yi may jëndoon te ñuy. Euh, xëcc ndox mi ci nuage yi King Air King Air ak benn avion boo xam ni avion bu gaaw la ci avion yu gën a gaaw nga xam ni mën nga ci dem Europe ci cinq heures mën ci dem Canada ak fu waaye nag bëgguma yow nga dugg ci man du ci dugg man danaa jënd avion mais du ci dugg du ma ci dugg bu fekkee ni da nga am avion bëggoo ci dugg da fekk ñii luwee avion nga jox leen ko man noonu laa bëgg a def xam nga maa ngi révélé secret yoo xam ni sax waruma ko woon wax waaye xam naa ni fii moom amul men sol su ko defee su ko defee boo bëggee voyager mhm. moom da koy loué mhm. da koy loué parce que ñii la ñuy loué avion xaalis boobu nag moom la ñuy fayee presque prix avion bi mhm. à part li ngay jëkk a joxe pour ñu jox la avion bi waaye boo ko nee dama bëgg tukki man de loolu noonu laay def bëgg naa tukki bés sangam jóge fii dem fa beneen avion la may jox <laughs> ci avion yi mu yor <laughs> moom la may envoyé ba ma ci waxtaanee sama njaboot it ba ñu ne ma d'accord nañ ne ni ma ne man de danaa jënd avion pour man waaye à la condition que du ci dugg ñu ne ma loolu d'accord nañ avion bi mel oto rek danga am looy avance ñu jox la ko ngay fay par soo ko mënee baax na boo ko mënulee nga luye ko. louage bi. Hmm? avion yi def artificiel leen ko am avion wax benn bi ci la bokk waaw jamono bu maralee waaw indi na ko King benn bi dafa am ay équipement électronique day dugg ci biir nuage bi analyser ko xam degré d'hygrométrie nuage bu baax rek moom mu génn kële ñëw sànni ci poudre bi mu def condensation mu taw di ñaan yàlla mu jox ma yeneen xalaat rek. di ñaan suñu jox ma yeneen xalaat. nee na Karim daf ko wax ni ko. projet yu rëy yi. projet yu rëy yi. man waxuma loolu. waxuma loolu waaye Touba. waaye Touba bu nga ànd nga bàyyi koog man. nga bàyyi koog man. parce que dañu ci doon jokkoo mu ne ma d'ailleurs. nee na Karim du ma la nëbbu commandé naa ci benn déjà. ne sax. pour sëriñ bi avion boo xam yàlla balay màggalu Tuubaa dana ñëw. boobu man loolu laa ko de ma ne ko fexeel fexeel ba mu ñëw daal pour jàppale ni ci affaire màggal gi. màggalu mu ne ma commandé naa ko de. commandé naa ko dem boo ko téléphoné sax dana la ko confirmé. lii moom laa la bëggoon wax ba ma la siyaaree ba pare ñu gërëm yàlla dina gërëm. nee na bi nee na mi ngi lay nuyu te di la gàttandu ci siyaare bi. di la delloo nuyoo bi. di la négee cant gu rëy gun la ameel xam nañ sa doxin yëpp ndax teg nañ ci suñu bët. li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba mënuñ la cee ñàkk sant. mën nanoo jël ñaari yëf rek. muy dëkk bii nga xam ne. lenn lu sëriñ bi bëgg ci lu bokk ci àdduna buñ ko xamee kon Tuubaa gii lay doon am na yitte ju fi nekkoon am na yitte ju fi nekkoon joo ne mel ne mënul ñàkk ci dëkk bi joo xam ne mënutoon ñàkk ci dëkk bi yàlla mi ko jaarale yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo bam sotti ni ñu ko bëggee woon loolu mu ngi fi mooy titre foncier Touba ak leneen loo xam ne bëggoon nañ ko ca Ndakaaru googee ndax dëgg la Ndakaaru mooy capitalu Sénégal ba loolu moo tax bi bi sóoboo ngir liggéeyal boroomam ndakaaru googee foofee la jaar jaarin wa nag di jaarin wu tiis loo xam ne nag du jóg mbukk ci sunuy xol loola loolee ñu bëggoon fa firnde ju rëy loo xam ne ndamul Sëriñ Tuubaa lay doon loo xam ne ñëpp dinañ ci mën a teg seen bët loolu mooy liggéey boobee di jumaa joojee ñu def ci Ndakaaru loolu ku ne xam na taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ci foofee mu nekk nag rawati ca loolu muy lu waroon a jafe loolee yàlla jaarale ko ci sa loxo muy itte ju mat sëkk akuk dogu ba loola am alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni egg na ci nan ko bëggee woon te incha allahu septembre bii di bëgg a ñëw le 27 septembre dajeeg ajjuma ci lañ ko bëgg a ubbi loolu nag loolu nag ndamal sëñ Tuubaa lu rëy la waaye wax dëgg yàlla am nga ci wàllu rëy ndax yàlla moo ko dogal waaye ci sa loxo la ko jaarale kon ñaar kon ñaar yooyu ndax yi ci des yëpp sax ndax li nga xam ne am na nañu ci waru garu mënuñ la ce ñàkk sant moo tax moo tax moo tax bi nga xamee ne wax nga ne da ngay ñëw tey siyaare si moo tax ma xalaat sama bokk yu baax yii dëgg la kilifa yoon wi yëpp dajewuñ fi waaye tànn naa ñoo xam ne bi leen bi ngeen leen fi fekkee. bi nga leen fi fekkee. mel na ni fekk nga fi kilifa yoon wi yëpp. mel na ni fekk nga fi taalibe yi yëpp. ndax ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk yoon wi rek moo di ak dundam. te xam nga doxinu yoon wi. gannaaw ci ay cant lañ la ameel. nu sàkk lim boo xam ne. danañ mun a wuutu kilifa yi wuutu bokki taalibe yëpp ñu seereel la cant goo xam ne yoon wi ameel na la ko ci yaari yëf yooyu mën nañoo yem ci yooyu rek xam ne li ci des lépp waaye lii moom amuñu war goru bañ la ci sant kon nag bokk yaa ngi nii yoon waa ngi nii ñépp sant nañ la gërëm nañ la ci taxawaay bi nga taxaw ci Touba ak taxawaay bi nga taxaw ci Ndakaaru ak liggéey boobe toll ci sotti loolu amel nañ la ci cant gu kon maa ngi ànd ak bokk yi ku ni kilifa yi mel na ni kilifa yeeg taalib yi yëpp daje nañu ñu ngi lay seeral cant goo xam ne yoon wi amel na la ko loolu mooy kàddu yi nga xam ne laa bëggoon a wax ànd ak sama bokk yi seereel la ko ah mooy li nga xam ne moom lañ la doon négee boo ñëwee nga xam ne ameel nañ la cant gu wér waaye sant nañ la cant gu wér gërëm nañ la ci taxawaay boobu sa diggante ak sëriñ bi loolu mooy li nga xam ne amoon naa ko ci li ma la war a wax sant la lool nag ci jotaay bii li nga nu wax lépp dégg nañ ko mu xam nañ ne yéene ju mat sëkk la liggéey bu rëy rëy la itam liggéey bu baree bare la itam loolu it dégg nañ ko bu baax loolu gën naa dalal sunu xel ci li nu bëgg ci Touba gën naa dolli sunu yaakaar itam kon jërëjëf bi ngay ñëw nag fekk na sëñ atu mii nga xam ne moo nekk ci bopp isbu tarxiya teraanga yëpp moom laa ko laa ko tegoon ci loxoom donc nag mi ngi ci sa coobare teraanga yëpp ngi fi bu fekkee dangay ngay àggale yi nga bëggoon a dox añee fi gënal la koñ añ yaa ngi fii fa nga daan dal itam ñu di ci li ma li projet yi ma xam moom laa bëgg waaw loolu nag dégg nañ ko bu baax a baax a baax nee na li nga wax nii dégg nañ ko bu baax a baax waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma cey waxal loolu rek la waaye déglu nu rek hmm. tabaarkalla baax a baax a baax xalaat bi ak itte ji gastu gi ak yéene ji yëpp xalaat bi tabaaraka la